Seck gisuñu ko dégguñu ko. Euh, mu ngi liggéey de. mu ngi liggéey ci suuf la ñu wax mais jàpp nga ne am na chance. Euh, xam nga jàpp nga ne cette fois-ci ce sera la bonne. xam nga dañuy sera sa troisième présidentielle. xam nga en politique. may mun a on ne meurt jamais. Euh, Idrissa pexeem ak xam-xamam ak talent politique moo tax ba jarul a xeet. mën na bett ñëpp. waaw jarul a xeeb sa jarul a xeeb jarul a xet